yi ñi si bunt bi tamit ñoom tamit ca la ñuy bokk yéen kaay gi di ko di cee nee na Serigne Mboup maire bu Kaolack coalition ànd nawle moom du bokk ci élection député yi ndax nag dañ ko wax na ko mënoo see bokk waaye nag moom Serigne Mboup nee na ba ko waxee na ko mënoo see bokk da leen la wax ji ngeen ma wax maanaam fan ngeen ko teg andi leen ma ci ay leeral wax leen ma yan juumte laa def waaye bu dee lu jëm ci wàllum ko ko yéen kaay gi naam ne fa fan yi yëpp ñu génn déggoon ngeen waa coalition benn bokk yaakaar doon tuumaale coalition yeewi askan wi ci diiwaanu Dakar naan leen seen liste bi baaxu la ñoom dim seen dara baaxu la yéene kaay gi di 24 li tax liste benn bokk yaakaar bi wërta dem ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëgmal dañoo déposé ay parrainage yoo xam ne yu ëpp la te loolee loi bi daf koy tere ndax waa benn bokk yaakaar ñeenti fan ci weeru sept cent quarante neuf bi dafa ne lu toll ci cinquante six mille trois cent vingt sept ci ay parrain maanaam moom nga war a déposé yéene kaay gi Seybaanou Sougou xelam màcc jëm ci wàllum yoon na nee na mbir mi leer na Benno Bokk Yaakaar bu ñu ko tegee ci dëgg rek maanaam ci siraatal mustaqima Benno du dem ci élection législative yi loolee lu leer la ndax mbir mi moom lu leer lañ ci wax te li nga xam ne mooy loi bi lu mu dëgër dëgër ak lu mu diis diis loi rek la te ñii nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar maanaam récépissé dépôt bi xam ne ñoom fësal nañu ko cinquante cinq cent vingt huit yu leer nañ ñi moo ci nekk falsification nag bu ci amee loole nag ay fraude la te nag daan yu métte métti mën naa lalu ci seenu ndodd yéen kay gi di évidence na lu jëm ci déposé parrainage ëpp loolee moo taxoon ñu kale Malick Gakou ci élection présidentielle 2019 yéen kay gi de la Tribune nee na bu ñu waxante dëgg benn bokk yaakaar waruñoo dem ci élection député yi ndax nag li nga xam ne moom la leen loi bi sant code électoral bi L149 dafa leer nañ ñi te loolee bokk yaakaar respecté wuñu ko kon duñu dem ci élection yi Bougane Gueye Dany nee na dina def ab recours ngir nag ñu annuler benn bokk yaakaar ci élection député yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la est-ce que loolee dina yomb maanaam élection législative ñu ne benn bokk yaakaar bokk ci le vrai journal la moom xëy di ñu xibaar naan ñu liste Yewwi Askan Wi ci diiwaanu Ndakaaru Khalifa Sall ak ku ñuy wax Lamine Thiam bu PDS ñooñee la ñu joxal bi baraamu tuuma ne kenn ku nekk dafa bëggoon a dugal ay nitam wàllum coxor ci wàllum politique moo dal Lamine Thiam mi ak Khalifa Sall ba liste ñi nga xam ne ñoo frustré na ñu njombe gi ak tooxi doona gi yëpp Khalifa Sall la maanaam jafe yi nga xam ne moo am ci ci investiture yu coalition Yewwi Askan Wi gars yi nee nañu nga xam ne ñoo bokk APR nee ma ñoom Abdoulaye Diouf Sarr ñoom nag nee ko war a annuler wërta bokk ci élection législative yi yéene kaay gi di Sud Quotidien nee na jamono ji coalition Benno Askan Wi yéene kaay gi di ñu koy fekk fa Abdou Latif Coulibaly gars laaj ko na ko waa Abdou Latif Coulibaly alliance bi dox digg diggante Yewwi Askan Wi ak Wallu Sénégal loo ci xama moom Abdou Latif Coulibaly journaliste ba woon na nee na kenn ku nekk am na sañ-sañ def li ko neex yéene kaay gii de Les Échos xëy duñu xibaara naan ñu liste Yewwi Askan Wi ci diiwaanu Ndakaaru Pala Samb ak ku ñuy wax Joseph Sara bu PDS ñoom jamono ji pare nañu ngir nag démissionné ngir nag liste bi mën a jàll Saliou Sara bu taxawu Sénégal jamono ji joxar bi nañ ko baaraamu tuuma ne tooxi doon a géek njombe la yéene kaay na wax ji nañu ko wax est-ce que nag Khalifa Sall lëkkalul waa pale ba ci biir coalition Yewwi Askan Wi ndax nag est-ce que Khalifa Sall mi bëggutoon a sacrifier Barthélémy Dias ndax nag leer na leen ne Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru bu fi nekkee nag député maire maanaam 2024 mën naa taxaw ne may candidat socialiste yi loole la Khalifa Sall di bañ journal bi nee na noppi gi xalifa Sall noppi ci mbir mi tamit jaaxal na gars yi est-ce que Khalifa Sall daal nekkulul Macky Sall ci biir coalition Yewwi Askan Wi du samay kàddu waa Dakar Times ñoo ko wax yéen a kaay gi di bàyyi mbir moomee détournement bi am ci réseau yëpp Sénégal journal bi nee na benn responsable bu ñuy wax Mour Gueye ca diwaanu Diourbel moo créé ab opération ci biir réseau yëpp Sénégal daal di nag sàcc détourné lu toll ci cinq cent six millions journal bi nee na juróomi prestataire yu yëpp Sénégal ñoo ko porté plainte tribunalum Dakar nee na nañu ko tëj lu toll ci ñetti ati kaso yéene kaay gi de Libération xëy ñu ci beneen tribunal tribunal du commerce journal bi nee na di jël ay mooy société bu bees solution bi nee na Bougane Gueye ak société bi dañoo amoon ay giitangaas contentieux seen digganteeg banque bii di Bimawo journal bi nee na banque Bimawo jox dëkk ndax nee ñu Bougane leen a ameloon xaalis tribunal du commerce nee na société Bougane Gueye Dany bi na fay lu toll ci 747 millions Bougane Gueye Dany moom rek ci boppam mu fay lu toll ci 250 millions yéen a kaay gi nee na nag bi àttekat kër góor gi bugaan jamono ji li ko dal seetu la yéene kaay gi ñu xëy fekk fa Ousmane Sonko ci Vox Populi nee na ay léexóora ak i njubla nga ak i mbir yu doy waar am na nag ci ni nga xam ne moom la Abdoulaye Baldé yore woon mairie bu Ziguinchor lu jëm ci wàllum budget mairie bi ni ñu ko yore woon Ousmane Sonko nee na ay ndëngate am na sa lu jëm ci wàllum recrutement yi am na juróomi téeméeri nit ñoo xam ne recruté woon nañ leen ci biir mairie bu Ziguinchor te ñe sa ëpp amulu ñu njariñ mairie ba xam ne ñooy yeewoo ca commune bu Diamniadio jamono nag sonn nañ tay nañ damm nañ dee nañ ci ki nga xam ne mooy jóob Sy ndax nag nee nañu ñoom seen suufa jóob si daf koo daal di ngar dajo moo tax nag askan wi nga xam ne ñoo yeewoo jam ñaajo nee nañu Diop Sy ay tappale la def ba teg loxo lu toll ci vingt-huit hectares waaye nag ba mu ko jëlee da koo jaay ay chinois moom Diop Sy moo tax askan wi yeewoo jam ñaajoo ñoom nag nee nañu mboolem scandale yi ñuy dégg ci jam ñaajo yépp turu Diop Sy ma nga askan wi yeewoo nag jam ñaajo ñoom nee nañu nag danañu amal nag ay marche danañu amal ay marche naqar